projet nii comme que Youssou Ndour nuyu na ma ne Mansour félicitation. waaw suñu wàccee damay photo ak moom. waaw ndekete. bala ngaa xam nit nga ànd ak moom. barke alxuraanu karim. ndekete place business bu ñu wàccee. waaw man ak euh, man ak kéem bi nu mu tudd garde corps bi ñoo bokk place ak jaboru Aziz bu soli le vent. waaw ma wàcc jël sama téléphone di xaar xam ni. tey daal photo bi ma neex laa jël ak Youssou ndekte ay garde corps koy jël si. Omar te yoon wa muy jaar non ay garde corps de France la wax. ak yoon wa muy jaar. ndekete ñun ak suñu yoon. du ma xool sama bopp. looloo moom gën a metti nag. xanaa xanaa déggoo mu ne lu ma. ba ba may dem Amérique xam nga lu ma def. place bi c'est la dugg. teg la samay tànk. ay Youssou waay yàlla nga gudd fan. boo déggee mu naan lu ma gën di màgg. waaw. xel mi gën di pànk. lu ma gën a soore. xel bi gën a jege lu ma dund woon. <laughs> war jënd war nga fay droit d'auteur c'est le maire. c'est que puissance bu yëkkatee rek. naan Youssou lu wax. ñu naan ko bay wax ma bi ak ki naan ko lan la wax. Ah, ba ko kon boog ndax ci gàmmu gi lañ jëm. waaw du Happy birthday to you, Youssou Ndour. Happy birthday to you. you. da koy opéra. jëlal ma fii. ma fii ma.